ibrahim alayhi salaatu wassalaam loolu la doon ñaan yow yàlla may ma xam-xam nga boole ma bokk njiit ci ñu ragal yàlla paa nekkub taalibe téye ci ab taalibe paa loolu rabbi siddini ilma waj'alni minal muttaqina imaama yow yàlla may ma xam nga def ma ma bokk njiit ci ñu ragal yàlla nit dangay fexe bokk nekk si pee waaye dee ci ab taalibe dee ci ak taalibe yàlla nañ ci yàlla musal ndax ak taalibe daal liñ ko jàppee fi mu toll mooy ci kii wax dëgg yàlla ngeen baal ma ci kàddu gi mooy ku ndayam tekkiwul dara comme mën naa ne daal aw xeetu saaga la daal taalibe diw taalibe la diw ko am taalibe la mooy ñàkk respecté nit ki mooy sa ndey tekkiwul dara sa baay tekkiwul dara yow tekkiwuloo dara ab mbalit nga nit ku suufe nit ku doye di léegi ki nga xam mooy sëriñ ba mooy ki am daraja yow doo dara sa ndey du dara sa baay du dara sa famille sa famille tekkiwuñ tus boo ñëwee ci suuf ngay toog di yolosi yolosi luñ la wax nga déglu léegi ci affaire taalibe gi laay ñëw ngeen ñëw ñu ànd ci dégloondoo daayira bi ndeysaan ki nga xam ne <laughs> allah akbar nit ñi ak taalibe daal gënal ma sama ndey gënal ma boppam ndey sama boppam ndey bala maa tëdd ci lal danaa ko yët wala xel bu ma laajee sama bopp bàyyi bala maa tëdd ci lal danaa ko yët bu ma laajee sama bopp bopp su ma taw laa koy joxe loolu mooy suñ Tuubaa lu gën a ndey suñ Tuubaa lu gën a bàyyi suñ Tuubaa lu gën a sunu bopp waaye dafa mën ci nun lu ndey mën mën ci nun lu bàyyi mën te fii te sunu bàyyi noonu suñ Aziz nee na yàlla nanu yàlla na nga dee ci taalibe yow deewal ci taalibe deewal ci ñaana la sa bopp pour yow nga dee ci taalibe mais man yàlla na ma yàlla musal ci am taalibe ñu tuddee taalibe moom <laughs> gis nga fi mu tamit kii taalibe la sëñ bi bu ko laajee bopp ndeyam mu dagg bopp ndeyam jox ko ko sëñ bi bu ko laajee bopp baayam mu dagg bopp baayam jox ko ko bu doon boppam moom fi mu toog lay dagg boppam jox ko ko fi mu toog lay dagg boppam jox sëñ bi yaay sonn ci yow ba ñu nga juddoo ba ñu nga ñëwee nga mën a ba sa ndey boobu yàlla suñ borom wax la ci alxuraan bi mu leer naañ yàlla waxi yàlla waxuma la waxi sëriñ Bàmba waxuma la waxi keneen waxi yàlla laa yàlla bi la bind bi la sàkk ne la moom moo la amal mais sa waajur yooyu ginnaaw ba ma jaamoo doo ma bokkaale ak lenn rafetal jëmale sa waajur su même sëñ Touba bu fi nekkoon waxuma leen doomam de kii xamut sëñ Touba pour waxin sëñ Touba bi dugg ci yoonam nekku ci ndax problème bi moom fekkewul xam nga ko naan da ngay dagg sa bopp ndey sëñ Touba laaj la ko sëñ Touba du la ko mës a laaj ndax fekkantewuloon jamono ay doomam sax fekkantewul ak jamono kii di wax nii bu fekkee vidéo bi yàggut kii jamonoom fekku ku moytul fekkul sax jamonoy Modou Moustapha doomu sëñ Touba sax moytu xamu ko kon du sëñ Touba moo koy laaj bopp ndeyam pour mu leer mais même bu doon sëriñ Touba mi ngi fi laaj laaj ko bopp ndeyam yàlla kim la sant ginnaaw ba nga jaamoo yàlla pour ngeen wax nit ñi dëgg muy dëgg ban nekkul li ngeen jàppee li mooy dëgg mais dëgg yàlla ja yàlla ba mu nee ngeen rafet ba mu nee ngeen jaamu yàlla te bu leen ko bokkaale ak lenn loolu la ci teg ngeen rafetal ngeen jëmale ci ay waajur wa amul lu gën a foor ci doomu aadama lu gën a rëy ci doomu aadama sa waajur bi la ëmb sonn ci yow ngay lekk ci deretam heure buy lekk lekkaaleel la li waajur di lekk mu ñëw jaar ci yow mu jaar ci yow dugg ci yow ci sa biir nga dund yow dem ba ñëw ci àdduna sa yaay di la tette jëndal la yére jàngal la defal la lépp gisoo sëriñ Tuubaa gisoo Allaaji Maalik gisoo sa sëriñ bi nga jébbalu gisoo kenn ku dul yàlla ak sa ndey amul looy def nga mën a toog dem ba màgg koo xam ni xamoo ko ba ni nga màggee ba dëgër xamoo ko après ci nga ko xam yaa dem ci moom jébbalu moo xam yaa li jënd sa sëñ wala bu mënta doon nga ne kooku ba la laaj sa bopp ndey nga jox ko ba la laaj sa bopp baay nga jox ko amul looy fayee sa ndey lu dul dagg boppam ak sa baay léegi ñu ñëw léegi pour seen waxi salafaañoo yi lii nag bu leen ci dugal sëñ Tuubaa nee leen benn waay bu toog wax nii rek ak kii te même bu ko sëñ Tuubaa woote woon it euh, ku nar a dagg sëñ Tuubaa doomam bu wala Alaaji Maalik seen doom yéen fi nekkal ku ci nekk sa baay ngay lijjanti même bu fekkonte da ngaa jamonte ne woon sëñ Tuubaa la ngeen jamonante yow sa papa bi la yar bi la bi la bi la defal kii alquran lim na sant mooy nga fay naa bi xoromam war rabbil kaaba ku ba sa ndey ba sa baay dem ci bàyyi kenn tus doo ko fa am lépp looy def di rafetal jëmale ko ci bàyyi kenn wala ndey kenn si sa ndey la gën a jekk bu dee jaamu yàlla ñun ñëpp ay jaamu yàlla ànd jaamaloo yàlla jaamu yàlla borom bi taala yàlla digle na julli muy Serigne Touba bu doon ñoo jamono teg Alaaji Maalik wax ku mu mënta doon julli waxtu fajar bu jotee li ma war moo war moo leen war mu ñu yeew jàpp ca fajar ga ca ndox ba sedd ba ut yiw yu saarihuuna fil xayraat jàpp buñ jàppoo dem ca jàkka ja julli ji ñaar raak ku nekk jaamul yàlla sa bopp ku ci nekk la nga def yàlla concerné jëf ca bu dee yàlla kott tax yàlla fay la bu dee da ngaa ngistal muy ku mu mënta doon boo ngistalee tus